Euh, les partis politiques au Sénégal tey jii nii raar na yoo xam ne jigéen ñoo ko ñoo ko ñoo maanaam jël seen bopp initiative décision benn ñaar boo seetloo élection locale yi sax néewoon na lool jigéen yu ñu jiital ci ci ci tête tête loolu aussi c'est combat à mener mais yéen yéen a ci war a jiitu. waaw waaye am ay paradigmes sociaux yoo xam ne dafay nekk frein pour jigéen. Mm-hmm. xam nga tey booy xool daanaka réunion politique bu ñu liggéeyee ba wàcc lay am. boo amee borom kër boo guddee réunion. Mhm. li ci ëpp mu taxal indi la ay problème donc il y a sociaux yooyu yëpp famille dañ koy gérer maintenant émission yu mel nii baax na ci. Mhm. ñu mel ni yéen di ci wax ndax euh, suñu càmm ñi. Mhm. gën ñu def euh, parce que boo toogee ñu naan la jigéen du guddee. par exemple jigéen warul guddee fii guddee jigéen warul guddee fee te àddina bi amul loo xam ne mën nga koo def guddi te mënoo koo def ba cëkk donc y a des réaménagements yoo xam ne mhm. euh, société bi ñun ñëpp ñoo war a àndandoo def ko pour gën a euh, joxante cër ah gën a respecter parce que euh, jigéen bi nga xamante ne Euh, moo nekk ci parti politique bi di exprimer sa citoyenneté mhm. comme li may wax kooku nekku fa jigéen euh, citoyenne la mhm. ay nawle citoyen la bokkal fa mu ne mais est-ce que aussi euh, yenn combat bu ñu si doon gis lu gën a indi benn booloo ci seen biir mën a yenn combat yi mooy ñaar exemple lay joxe benn l'affaire Amy Ndiaye ñii bi à l'Assemblée nationale biñ ko dóoree ñëpp bu ñu bokkoon condamné ko xëy na kon euh, tey jii di ngeen wax benn voix euh, l'affaire Mimi bi ñu nangoo ndombal tànkam ñu ba doon nañ xaar jigéen ñëpp toog ñaawlu ko mais encore là division def dañ ko ci gis ak yeneen cas l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ñi dañ ko défendre ñi défendre ñu ko yu mel noonu aussi dafay tax xëy na combat na egg fi ngeen fi ngeen fi ngeen. exactement foofu laa doon bëgg ñëw euh, loolu dama koy wax sur la solidarité féminine. Mm. exemple yoo xam ne bu ci nekk benn ute bu nekk ute na sa moroom mm-hmm. ndax Euh, soxna Amy Ndiaye ñibi foofu dafa nekk une citoyenne qui s'exprime parce que foofu c'est un débat argument moo fay dox mhm. donc la plupart nag des hommes bu ñu nekkee en cours d'argument dañuy utiliser la violence nangu seen baat ju jigéen tam baatam du jóg mu ngi noonu mhm. ndax kenn ki bañ ko waxee dafa ne man duma wax jigéen di ma tontu xam nga loolu du nawlawoo sa naw la jigéen assemblée ñëpp a yem assemblée ñëpp a yem fa yóbbu moo ko fa yóbbu donc moo tax ma wax ne am na benn travail boo xam ne il faut que ñun ñëpp société bi ñu def ko mm-hmm. euh, l'affaire du euh, cas wu mi Touré bi nga wax loolu nag euh, réalité parti politique la parce que parti politique dafa am ce qu'on appelle discipline de parti et puis mu am un chef de parti mm-hmm. le chef de parti mooy décider qui doit être fan ak naka la fay nekkee donc su fekkente ni nag dafa tànn keneen nga ne lu tax du man loolu ñun d'accorduñu ci mm-hmm. du question jigéen du question góor

lépp euh, du luñ ko dikk parce que du loo xam ne ñun da dégguñu ko publiquement <laughs> président laal mu ne nangam nekk tête de liste euh, nationale ça ne veut pas dire que yow yaay nekk président assemblée nationale mhm. am nañ ci ay exemple euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne nekkoon na fi tête suñ tête de liste nationale ñu dem élection mais biñ ñëwee nekkul tête de liste mhm. nekkul premier président assemblée donc yooyu yeneen réalité la pour le cas de Adji Sarr c'est une affaire privée mhm. ah, wax dëgg yàlla képp kuy jigéen da ko war a ñaawlu parce que affaire privée la te ñun aji Sarr képp kuy jigéen war nga identifier wu sa bopp ci moom. Mhm. xale bi fa mu jaar ñun jigéen mën nañ koo comprendre. Mhm. donc bu fekkee nag euh, par parloo ir maraalu kiiraay kama àndal parce que def na loo xam ne waru ko def yooyu nag mooy li may wax solidarité féminine bi nga xam ne jigéen ñi dañu war a xam ne lii jigéen ñoo ko moom ñu développer une solidarité féminine. Mhm. loolu moo ñu mën a gën a jox ay jéego. ñoo dëggal